syndicat jëf jël daal di génn eh, ci presse bi ak attaque yi nga xamante ne amal nañ ko ci moroomu syndicat wam yi du leen lu dul campagne de diabolisation maanaam yàq tur loolee nag la intersyndical yu docker yu SATS daal di xamle. bu fekkee am na discrimination ci wàllu liggéey bi am na fu ko yoon di ko atte fii lépp ngi fi nous sommes dans un koo xamante ne mën ngaa xëy liggéey Sonaco suba nga liggéeyu Grand Moulin suba nga ñëw port. ñëw ne docker yi du ñu liggéey bu fekkee ne opération dafa war a du doon ñoom. niñ ko tënkee ci charte yi lu soxal wàllum fësal sa naqar ku nekk am na droit daal di koy def naam nag waroo cee woo kenn wala sax daal di ci amal ay yàq-yàq loolee nag la boobule syndicat mi ngi ciy joxoñ baaraama tuuma la ñàkk a jëf jël lu fi yàgg a nekk la naam sax compétition yàgg na fee am wante li ni mel mosuñ ko fee nemmeeku. yaakaar naa ne ngir rek euh, liggéey personnel loolu warta jur coow su fekkente ne amoo leen euh, doole bu war warul tax ngeen di war a mën a forcer intersyndical bu docker yi nga xamante ni nag ñoo ngi bokk ci CDTS ak UNSAS ne nañ dinañ dugal kayitu clamé fa mbaxane doone benn naam nag euh, dogu nañu ngir ñu amal ay waxtaan bu fekkente ne dañu bëgg defaat loolu loolu moom beneen mbir lay indi donc le problème sera porté au niveau donc des instances fi ñuy décider loolu ñu décider ko pour que lii dootul amati. balaa ñuy déggoo seen biir nag ñëpp ñi nga xamante ne ñooy jàpp ci liggéey bi ba port autonome de Dakar liggéey bi daal di mucc ayib ñoo ngi xaarandi ñu daal di ci àddu.